waaw man ni ginnaaw ma leen sante gërëm leen ci ñëw bi ngeen ñëw fii bi ngeen di ak sax yéen ngi ñu fekk ñuy xool naka la ñuy xeexe jàngoro bii lëmbale réew mi ci jamono yooyu wax dëgg yàlla ngeen ñëwee di ma wax mbir moo xam ni metti na ma trop ndax suñu askan la te askan wi lépp luñ ciy def lu baax dama jàpp ni man lañ koy defal mais képp ku ciy def lu baax it war nga xam yoon wa ngay jaar pour ñu defandoo ndax kër jàmbur kenn du fa ñëw du joxe dépense école yi mairie bi moo ko yor lépp lu ñu fay def wala lu ñu fa bëgg def dañ ko war waxtaane mair ba ak mairie problème mu pavé école bi xalaat bu yàgg la woon ci man ba ma koy wax bari na ci ñoom ñu ni woon kenn mënul pavé école bi ndax bu tawee nawet bi ndox mi foofu lay foofu lay foofu lay jaar ñeneen ñi ma kuuri école bi mënuñu ko pavé ndax élèves yi fi la ñuy def éducation physique mais bi ñu amee ay pavé fii ma leen comme que am naa xalaatu pavé Ibrahima Koité def genre ale dinaa woo ko xam ne xam-xamam màcc na ci design mu wax nu nan lañ ko mënee pavé ba mu rafet ma ni pavé yi yóbbu leen ko Ibrahima Koité mais au lieu que ñu wàcce ko Ibrahima Koité ña ko yóbbu wàcce ko Ousmane Socé Diop réunion yu may faral di amal ak directeur école yi ci laa wax directeur école Ibrahima Kouata monsieur Sène ni ko yow de man am naa yéene pavé su cours boobu mais foog ma woo ko nga xam ne xam-xamam màcc na ci design moo wax ni nan lañ koy pavé pavé yi sax mu ngi ci Ousmane Sosou Diop moom teel ma rajax la parce que dafa yeewu suba rek dajale ay élèves dem pavé yoo xam ni. ko ñu suuf lañ ko waroon defee jël ko yóbbu dajale ko ci biir école bi ñu war a pawe ko ñu suuf mu ne du joxe pavé yi man ci sama bopp maa fa dem ni ko monsieur Sène déedéet waay pavé yi mos boo ko gisee nga xam ne du pavé court wala pavé devant kii devant court pavé yi benn bu ci nekk 7 kilos la dañ ko defar pour bu ay camion ay oto yu mag mënee jaar du toj du yàqu. nga teree mooy li ma la wax waa pavé yi nga xam ne ñoom dañ ñëwoon ñun duñ ko pavé def fa ay pavé amuñu autorisation man leen fekk amu leen autorisation du leen ko def parce que waru leen ko def kër gi kenn moo war a joxe dépense kenn du fi joxe dépense te mu teew gëmuma ko gëmuñu ko woon mais bis bi ñu jëlee pavé yi ba commencé pavé ko ñu suuf xamatuñu lu ñu def pavé yi ñoo naan waaw suñu pavé nu koy def man ko xam. indiwuma ko fi yéen ko fi indiwoon ñeneen xam nu ngeen koy def ñaanuma ko soroxuma ñu commencé jël ay saret yenn yi sax dañ ko jaay ci li ma dégg yenn yi ñu yóbbu ko feneen la ca des nag directeur bi moo topp di ko ñaan ba may ñu may ko ko mais même buñ ko ko mayee mu am yéene defar école am mais école bi xam ni moom mënu ko defar moom kese dafa ñëw bind wala mu laaj maire bi kii dama ko bëgg pavé et cetera surtout que maire bi nee na ko dana ko pavé

damay wax suma àqu dëgg ak yoon amuñu benn xaar ma yàlla li ma xam ci moom ku nite laa xam ci moom li ma xam ci moom ku yaru laa xam ci li ma xam ci moom ci ku dal la fii barki démb am na ay xale yu muy àndal yi ñëw nañ fi kàddu googu lañ ma wax suma papa nga suma nijaay nga jàngal nga ma ñaari at li ñuy wax ci yow mën nañ ko wax ci directeur port bu ma sañoon ngeen ànd liggéey mais kuy liggéey ku ko jàppale ci liggéey bi rek la bëgg mais jàppale ci liggéey bi nañ ko teg ci yoon